dama nekk assemblée 2001 ak président Khoureychi Thiam euh, ñi may defal ay cours leadership xam nañu ne chaque année ma jàngale kaawu Khoureychi Thiam mu am loi bu ñuy voté assemblée nationale mu jóg yéeg ci tribune bi il était de la majorité présidentielle Ils nous regardent tous dans la salle et ils regardent le président du groupe parlementaire. mu ne ko loi bii ngeen indi biir assemblée nationale sama conscience maye ma ma voté ko. il a refusé de voter cette loi là à l'assemblée nationale. ba mu ci jógee il a fait une traversée du désert. Abdoulaye Wade dem na ba si kanam xam ne nitu valeur la mu indiwaat ka delluwaat responsabilité mais man je tenais yow. Alpha ak Astou à faire ce témoignage-là sur votre père. C'est un homme de valeur, c'est un homme d'honneur, c'est un homme de dignité. waxuma xam-xam beeg connaissance bi mais c'était important lu mel ni depuis boobu maa ngi doog a am chance def témoignage yu mel noonu mais il faut vraiment le savoir il faut savoir que quand la nation a eu besoin de lui ba ñu indee assemblée opposition bi di xeex ñëpp taxaw di xeex il fait partie des gens qui se sont levés malgré ses intérêts et bi sama conscience man maye ma ma voté ko je voterai contre la loi il il l'a fait et c'est en cela la ñu war a jàng ñun aujourd'hui ñuy def politique homme politique ak politicien du benn militant moo amatul Sénégal nous n'avons plus de militants politique du marketing personnel les gens aujourd'hui font leur seen marketing bopp seen bopp la ñuy jaay faire de la politique c'est s'engager pour sa dëkk li jàng ji wax naan xitma sacerdoce mooy politique ku ko mënul mënoo def politique di def si askan wi di jéem te séentuwoo si lenn dul pay yàlla loolu mooy def politique ku ko mënul rek mënoo def mënuloo def politique et ça nag c'est les anciens ñoom Cheikh Gueye ñoom Khalifa Sall ñoom président Khoureyssi Thiam mag ñi ñoo doon def loolu parce que dañu doon def école du parti. su ngeen laajee mag ñi nit ñi daan ñu xuloo ay at am na ay mag yoo xamante ne àndatuñu tey lu tax. parce que ñii dañu ñëwoon révolution dax war a nekk populaire ñii dañoo révolution dafa war a nekk nationale ñun léegi koppar la ñuy xëccoo xaalis ak ay position ak ay buzz ak ay nombre de vues sur internet la politique ne marche pas comme ça parce que je vous le dis moi je connais Khalifa Sall n'est pas un homme qui trahit. Ça, vraiment, il faut que... Au niveau de, de Yehu Askani, je défie tout le monde. amul kenn au niveau de Yewwi Askan ku ñemee taxaw ak man ne ma Khalifa Sall a trahi kii kii wala kële j'étais là-bas dans les débats du début à la fin des gens ont manqué d'expérience politique et ñëw jiital seen bëgg-bëgg bopp ñii di xëccoon ba nay Ousmane Sonko ba def une erreur politique en refusant de participer au dialogue politique c'est ça qui s'est passé les gens ne peuvent pas dire dañuy def gatsa gatsa gatsa bi yëpp mooy taxaw def conférence de presse ak dox ba buntu ko Ousmane Sonko bu ñëkkuwaat dem ñibbi siwaat quand on ay on dit à quelqu'un damay xeex à tes côtés bu demee kaso da dem kaso bu grévé de la faim da ngay di fu mu deewee nga dee fu ñu jàppe famille Mais on ne peut pas dire à des gens, on s'engage à cette voie-là, nous avons été clairs avec, avec Agnès Nekonso. On leur a dit, notre option, c'est d'aller au dialogue. dialogue Les gens n'ont pas voulu écouter, ils ont voulu faire autre chose. Et c'est ça qui nous rattrape aujourd'hui. Il faut quand même à un certain moment dire certaines vérités. Sommes-nous si di masla ak nit ñi qu'est-ce qui se passe c'est Khalifa qui a dit simplement à un certain moment man mënu ma nit nekk si si tolof tolof may may werante ak moom ak di xëccoo ak moom luñ ma wax baax na doy loor naa ko yàlla yàlla na indi dëgg ci kanam et c'est ça qui est aujourd'hui en train de se passer donc il faut dire les choses très très clairement yéen waa taxawu yëkkati leen seen baat ci kaw regardez tout le monde les yeux dans les yeux j'y étais fekk naa débat yëpp si public lay wax je sais que la presse est là personne au niveau de Yewwi Askan Wi n'ose jàkkaarloo ak man na ma Khalifa Sall a trahi kii nit wala wala c'est les gens qui ont fait des erreurs il faut aujourd'hui qu'ils assument leurs erreurs donc c'est dans ce sillage là que nous allons continuer à faire ce travail là au niveau de Thiès on sera avec toi Médina nañ la jàpp ci loxo nañ la jàpp comme sœur nañ la jàpp comme sëriñ nañ jàpp aussi comme kuy leeral yoon nu jëriñ ngeen jëf